waaw mais ñoom ñi am combat yëpp kenn ku ci nekk nag wàccoowul ak yoon jël nga combat boo xam ni ni nga ko jëlee vraiment teguwul ci yoon hmm. te nag comme dañu nekk ci recadrer écrit bi am na loo xam ni foog ñu waxtaan ci ak ñoom avant saison bi di ubbi ndax ñun saison bi commencé nañ ko démb mais comme euh, nit ñi ñi ngi waajal du Nabi bi xam naa ni mbër yi genn wàll gi yëpp dem nañu dirigeant yi genn wàll gi yëpp dem nañu mais fii ak leen di daañu door entraînement yi foofu au niveau de l'écrit bi même ba ci Zarko tête file bi sax dafa wàccoo ak yoon ci ni mu jëlee combat. waaw wàcceew nag yoon c'est parce que xam nga Zarko tey combat bu toll ni eh, eh, mbay guy gi bi mu ñëwee ñëpp fàtte woon ko ci làmb mu ñëw indiwaat ci empreinte am indaale benn combat boo xam ni bàyyi ma njoon la bi mu ñëwee combat bi lañ mu jëlal boppam eh, mbay guy gi def sorti bu rëy boobu dellu si jël bàyyi ma ñoon def sorti bu rëy boobu wax dëgg yàlla su dellu see jël aada faas ah ñi ñu ëmb ñun xam ñu nekk ci milieu làmb daañ ni ah Zarko mi waxtaanul ak ay dirigeant am ndax ñun ëpp ñu ëpp ñu eh, lu lay visibilité ci làmb yomb na mais su ñu waxee yow ci làmb dangay xam ni ñii di wax làmba xam-xam la ci ñoom ci te deret la ci ñoom kon Zarko mënoon na am combat bu gën Ada Fass jël na ko mais jëlu ko ci yoon mais ñi ngi ñaan yàlla yàlla mi nga xam ne dugal na ko ci ba pare ndax combat boo ko jëlee amul commentaire li ci des mooy liggéey rek génn ci leneen li nekk sa kanam ñu xool nan lañ koy organiser ba teg ko ci yoon. mais ci côté staff technique bi aussi est-ce que euh, amul ay ay euh, trop laisser aller ay yu bëri yoo xam ne da ngeen koo bay bayal parce que ci sa biir wax Zarko bi muy jël euh, mbay guy gi. nekkutoon combat boo xam ne yéen préféré woon ngeen ko. Hmm. ngeen bay bayal ko mu jàll loolu permettre na ko tey mu jëlaat beneen combat boo xam ne ni du leen ci laaj seen avis. Euh, ci loolu ragal na loolu mooy sa tànk yi tey loolu mooy tànku journaliste yëpp mooy mooy mooy mooy média yëpp tey ku ñu talal micro loolu nga ñuy laaj mais j'espère que ni dox nañ ci 60 pour cent 40 pour cent yi nag moo gën a jafe